yegg si leen ak jàmm ci seen seen bii ñuy wax Ndar Fall info ñu topp bépp Ndar bi ngeen xam ne mooy bi joxe ñu may mooy jox boo bëggee topp suñu vidéo xam boo bëggee topp suñu seen seen dugal nga man jàmm seen soxla A'udzu billahi mina sheytaani rajim Bismillahirrahmanirrahim. rahim taala wa Assalamualaikum asalaamaaleykum mbokki mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siaré. Jital su nuyo bi ak siar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mum Serigne Bassirou ñaanal ko sa borom mu yàggal ko fi lol te wëral ko bo mbollem naal yi nga xamanteni naal liggéeyal maam ju tedd ji Serigne Bamba sa borom dolli ko katan ak man-man dooleel ko defal ko tawféex ba nu mu ko bëggee mu defe ko ni noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Fall Menda suñu borom gën ko fee yàggal te wéral ko ba mbooleem digali juy ko sëñ Bamba yëpp mu mën koo jëfee ni mu ko bëggee du ñu ko digal ñu koy defee ni mu ko bëggee di ko ñaanal mbooleem muri di mbooleem jullit yi ak ku leen yéen a jàmm mbokk yi ñi ngi fii nga xamante ni mooy njaareem murid di ñi ngi kër seex Baye faal yi ñi ngi Kawsara buñ ko waxee nag xel dana dem ci bis bii nga xamante ni mooy ndogu ajuma yi waxatuñ sax ndoxu ndogu ajuma yi waaye bis bu jot weeru koor bu jot xel yëpp dana dem bu alxamis jotee fii nga xamante ni mooy njaareem fii nga xamante ni mooy kër seex fii nga xamante ni fi la jàmbaar ji nekk ànd kook njabootu Cheikh Serif Assane gi muy Serigne Amdi Khady Fall yàlla na fi yàgg loo téwér ànd kook njaboot gi ànd kook taalibe yi ñoom ñëpp ñu dajaloo doon benn say lenn nekk seen wiite mooy fexe ba ndog yi nga xamante ni ñu ngi koy waajal di ko yóbbul sëñ Tuubaa mu mel na nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi bëggee noonu lañ ko fas yéene di ànd ak yéen saa su nekk ajuma bu jot fii si njaareem kon niñ ko defee ñaar yi weesu tey nag di ñetteelu ajuma bi di fukki fan ak juróom benn si weeru koor kon nañ daal di àndandoo tàbbi ci biir ñu wanati leen li nga xam ne fii lay xew fii si Kawsara saa bu ngeen ko gisee dangeen koy xemmem nañ àndandoo daal di si biir jaa ngeen la ilaha illa la la ilaha illa la fa la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha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 la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha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 fa la la la koy mbokk yi jeer ngeen jëf si top gi nga xamanteni ni ñu koy topp boobaak legi comme niñ koy amalé ajuma bu jot nak togo ki nga xamanteni mo yor kàddu kër gi muy Baye Moussa sek sek ak mom ay waxtaan ci li nga xamanteni moy bi mbo mbo mi nak ak ñi sétane ñu bari seen xel buñ gisé liggéey bu reuy bi nga xam suñu di xadim mi ngi koy liggéey seen xel day laaj kan moy Serif Assane tay mom lañ bëggoon Baye Moussa sek dimbali ñu si. kan moy Serif Assane dey lo jafé la. waaye lu yomb la ndax moom de moo waxan sëñ mbay gee ca taw féex ni ko mbay mu ne ko faal mu ne ko xam nga aadama mbay gee ni ko waaw faal xam naa aadama di faal sëriñ Assane Fall jël baaraam mu tedd ba rëkk ko jëdën na mu sell ba ni ko mbay mu ne ko faal mu ne ko may aadama maa jur ñëpp moo tax yéen mën na ja bari kan mooy sëriñ Assane nag ci xaminu sayir Sërif Asan Fall ak sëñ Moodu Mustafaa Fall mënoo xam ne kenn ci ñoom te xam ne waali woo moroom ja ndax ñoom ñoo bokk maam Cheikh Ibrahima Fall ak soxna Atou Sil bi nga xamante ni saa war naa dugal diggante bi ci gàttal maam ci Ibrahima Fall dim jëlliirlu sil ci ndigalul borom Tuubaa Xaadimu Rasuul fekk fa soxna Xayta Fall bàjjanam muy wëjul soxna ëttu sil bokk ak maam Amadou Fall rokko baay fekk fa ñaar muy soxna ëttu sil ak soxna Awa Demba Sil dafa diir ci waa Touba ba nga xamante ni saamam ci rafal ñëw na ci borom Touba Xaadimu Rasuul ne ko Mbàkke dama faa fekk ñaar bu doon kenn ma xam ne sa joxoñ mbaa waaye ginnaaw ñaar laa fa fekk tànn ci des te man Mbàkke du ma tànn yaa may tànnal saamam ci rafal ne ko fekk naa fa ñaar ak ay sëtu mooy soxna Awa Demba Syll ak soxna Atu Syll seen ko baax ki ne ko ma laaj ko sa ma laaj ko sa ni néeg bi rab ne tuut mu ni dëll ne ko sa borom nee na ay sëtu la sëriñ Assane Fall ak sëriñ Mouta Fall moom yàlla leen tànnal ngay sëñ Tuubaa ni sa borom nee na ay sëtu la mag ñi nag daa nañu tànn soxna ci wal baladu tey bu yaxru joo nabatoo waaye bi isni rabbi ci ndigalu yàlla sëñ mu tawaa faalu ko am ak sëriñ Asan Faal sëñ Tuubaa ni saabaroom ne ay sëtu la kooku muy néegum ndeyam sëriñ Asan Faal gane jamono tasineer Ganjool 1896 bokk ci doomi maam si Ibrahima Fall yu mag yi ca di ba ci géej gi ba ca déwén sa borom Touba ñibb si dajeeg mata dal jàng dalal ko ba mu jàng ba luwaam yegg saa maam si Ibrahima Fall yóbbu ko benn école franco arabe bu ñuy wax école ci Ndar moo doone école de fils de chef école de fils de chef boobu tubaab yi dañ daan jël doomi buur yi di leen ci yóbbu bëgg jàng ba jàng loolu mu tudd otage ci tubaab ñu dem ko école de sotage bi diplôme yi génn yu jëkk ya mag ñi xam lan mooy njariñu njàng ca la kilifa yi jële seeni doom yóbbu ca ca la maam Fall yóbboo Serif Hassan Fall ci école de fils de chef Bobé ca Serif Hassan Fall jàng fa ànd ak rakam ji baax ji Serigne Ali Fall Mbawar booba école bi da ngay am brevet du titre brevet supérieur élémentaire ba français wala nga am bu arabe Serigne Assane Fall amandoo ñaari brevet yëpp ci menn at 1919 ba mu am brevet yooyu procès oral ni ko dama lay def chef de canton mu ni ko nag ba may jàng ndoom ak tànku adduna taxumaa jàng ndigalu sa baay Cheikh Fall taxan jàng fekk si Serigne Assane Fall fekk si maam si Ibrahima Fall nee nee ma ne fu mu ko fekk dara du asaar fii ci kër gi maam si Ibrahima Fall bi mu ñëwee njaareem dafay sañ ci ñaari kër. waaw tudde génn kër ga màggatal mu karam mooy màkka loy loy. tudde kër gi madinatu wara muy kër gii nu ne. mooy ñaari kër yi fii nii nu ngi madinatu munawara màggatal mu karama nga ña ca saw. saamam si Ibrahima Fall ñëw 1916 sañ ci madinatu munawara 16. 17. dix-huit dix ñetti at sëñ Assane Fall am ñaari brevet titre élémentaire yu français ak bu arabe fekk maam Serigne Fall fii ci Madinatu Munawara ci njëriñ Baye Adama Diop nee na bi mu ñëwee da ko ni a Serif ne benn ñetti xeeti ñam ne daal di ñëw toog daal di nuyoo ah ni ko Serif mën ko faal mën ko mën ko mag sëñ Bamba danoo demoon jiwaaloo tàmbali fa liggéey liggéey ba yëggul ni Serif mu ne faal mu ko ñëwal yëggali ci liggéey ba boo demee jiwaalu nag sën ya ca ginnaaw dëkk ba nit ña defuñu ko fa yàlla ko fa booleeg suuf sa wàcce cere xërëm dëkk kenn mën leen faa waaye dee leen randal ba seen liggéey yegg daal summi ay yére ni xëpp Serigne Assane Fall Baye Adama Diop moo ma wax fii ci kanamu jàkka ji waxtu takkusaan sëñ Assane toog ci photo yi bi nu toog ci suuf boobu sama sunu diggante Serigne Assane matul ñetti mètre nee daal di summi ay yéeri xëpp ko nee ba nu génnee sëñ Assane ni ko Adama Diop mu ni ko faal mu ni yii bis bu ko yàlla dogalee nañ ko nañ ko booleeg man nañ ko booleeg man waaw nañ ko booleeg man même fi bàyyi ko Adam Diop wax ma loolu lii le 6 juillet 1980 Cheikh Abdou Khadir Mbacke baax ma ñaareel Serigne Assane ba noppi ñu jël yéere yooyu ma teg ci sama bët ñu boole koog moom ci sama kanam. est-ce que euh, loolu séeréer wér na. Serigne Assane Fall sanc Ngeeñeen 1919. vingt vingt et un vingt deux vingt trois vingt quatre mu mu sanc jàmm gën ci ci yii ci man ningre làng ak canaba mu sanc man ningre daaray ngeeñeen di dox Sëriñ Asan Fall di ko liggéey di teg ci loxol maam ci Ibrahima Fall mu di ko teg ci loxol Sëriñ Tuubaa 1924 mu sañ ci jàmm gën daara yi jàmm gën di dox ngeeñeen di dox Serigne Assane Fall di liggéey di teg ci loxol Mame Cheikh Fall mu teg ci loxol Serigne Touba 1926 mu sañ ci daara yi wéri ngara fii ci wetu Touba Fall diggante Touba Fall ak Bayti liggéey fa ab liggéey fekk maam si fa ko ndigal ne ko sama daara ca diggante Touba Fall ak Géb demal nga sanc ko mu ñëw nag yem fii ci pël gii ñuy wax wéli ngara am ñu koy wax jëm wéli benn la sëri Assane Fall sanc fa ba mu liggéeyee liggéey ba yegg mu sëf ko ci gëléem jox maam ci Ibrahima Fall ma teg ko ci loxol borom Touba Xaadimu Rasuul sunu waa ji nag daa yàgg am doole. ba ba doolu amee maam ci Ibrahima Fall nag loo ko mos a jox dina laaj foo ko jëlee al sëriñ fu mu liggéey lii. ñu ne ko daara ci jëmwel yi pël gu ñu wax jëmwel yi ci diggante Touba Fall ak Bayte ja fële ko liggéey mu ne hee hee sëriñ ca kanam sama daara diggante. Touba Fall ak ak ak ak ak gébb laa wax muy muy koosare gii tey sërif ca kanam ca kanam daara yaa nga ca kanam baatub ca kanam boobee sërif Assane Fall sëf na ca gëliimu tukkal gu fees del jox ko bàyyi Modou Gueye ngonk bàyyi Taale Gueye ne ko boo demee joxal ma ko Seera Fall ne ko maa ko màggale baatub sërif ca kanam <laughs> bi Baye Modou Gueye Ngonk ñëwee lii Baye Cheikh Tall Gallo moo ma ko wax ceetum solu Kunta Mbàkke Baye Cheikh Tall Gallo mu ni ma maa mu ngi fekk boobu guddi gi bu doon ñett xaaj ñaar ña jàll na nee muy bës Cheikh Faal di ko bës nee ba yàgg man ma si taal ne ko faal muy demal xool ma biti ba nee ba ma ñëwee fekk ku yësul gëléem gu sëf ba diis mu ne ma kaw sara laa jóge Sërif Asan Faal moo ma jox gëléem tukkal gii ak sëf bi ne da koy màggale baatu sërif ca kanam nee ba ma ñëwee ne ko fekk naa ca ci ma dey ku ñuy wax Moodu Géey mu yor gën mu tukkal ko sëfam nee sëriñ Assane Fall la ko jox nee da koy màggale ba sëriñ ca kanam nee ma ne waaw kay man ma Moustapha man ko Fall mu ne ma delluy bës Sëriñ Fall di ko bës di ko bës ba yàgg. ab diir ma ne see taal man ko faal mu ne ma dellul seetal mu biti ba dellul doom seetal mu biti ba ba ma ñëwee ma gis ko taxawal ñaari banjooli yu yoo xam ne bu ne toll na ni gëleem ma ne ko foo jógee mu ne Touba Fall mu Moustapha Fall moo ma jox ñaari banjooli yii ne ma demal joxal ma ko Cheikh Ibra ma ñëw fekk ñu fatu man ne naa ni ba suba gëleemu sëñ Assane Fall ga ak ñaari banjooli yi sëñ Moustapha Fall ya ñoo fanaan keru cib cib ñoo daj ci pénc mi waaw ne ba ma ñëwee ne ko fekk naa ko yor ñaari banjooli de faal ne sëñ mu faal moo ko yónni jóge tubaa faal waaye daa fekk ñu fàttum ni ndawul sëñ Asan defoon bàyyi Cheikh Tall Galaw ne na ni mu tëddee mooy mu di ko bës dañu bëreet daal aj daal aj loo koy daal di fudd ne doom ñaari doomi ëttu silli yi ndaw soo ngóoral <laughs> daa ngay ñëw de. ah wax daa ngay leer doom ak si mu daal di sanc waawa muy daara maam Cheikh Fall joo xam ne déggu waadu waawa fa neem bi ñuy sanc waadu waawa nag Cheikh Mamadou Lamine Baara moom borom Touba Khadimou sëñ am di xel yi mii mooma ni moo jógee xewar kër sëñ Fallou Ndiaye xewar nee bi mu ñëwee ne ne ne ji lu mu sanc bi lu mu tudd déy ñu ni waandu waawa mu ni fii mooy kaw sara déy yi mooy kaw sara déy yi mooy kaw sara déy yi baatu kaw sara boobee Cheikh Mamadou Lamine tuddal Serigne Assane moo tax dëkk bu Serigne Assane Fall sanjati tudde ko Kawsara ngir war maa ne ko Cheikh du Lamine Kolsara googee 1927 at mi fi sëñ bi bàyyi ko la ko maam Cheikh Fall sëñ waaye daara Cheikh a faalawal ñu dox Serigne Assane Fall di liggéey di ko teg ca loxol magam ji tedd ja Cheikh Modou Moustapha Fall ñetti daara yëpp di dox ba 1957 waaye 57 nag am na sëñ boo ko mag 1950 Serigne Moustapha Fall at mi mu fi bàyyi ko ba ñu gàmmoo ba noppi la jox Serigne Assane Fall ndigal mu sanc Kawsara Fallu Kees Serigne Assane Fall sanc Kawsara Fallu Kees ci ndigalu Cheikh Mamadou Moustapha Fall sëñ Moustapha Fall doog a fatu. muy muy Kawsara gii ci Kees. gii ci Kees 1957 mu sañ ci taw féex taw féex a ngi ci ci diggante Daaru Rahim ak Gébb taw féex a ngi foofu. boobu si Moussa dem na boobu yenn benn magum pël ba ñuy wax Baye Souley Kumba Dala moo jël suul sa jox ko Sëriñ Asan Faal ni ko may na fii liggéeyal yàlla ba mu ko jógal Sëriñ Fallu moo ñëw ni fii lii tawféex la سين فالو كنتو توفيق تسين بار كوسرة بين بار لتي القرآن إنا أتيناك الكوسرة نيواتو مفرد لا سين بار سين مومد لمن بار مو كنتو لسريب أسن توفيق سين فالو كنتو لسريب أسن تمامين بين بار لا وما توفيق إلا بالله ميمونا ميمونا Serigne Assane Fall mi dem ba 1968 muy mu gor mu gor Daaru Bayre yeesal Daaru Bayre. Daaru Bayre Géeja loolu ban année la. mille mille neuf cent soixante-huit. dugub ju bari jokkoo sëñ sëñ Fallu wàcc ab liggéey sëñ Asan bayaat ko mu toll na mu tolloon nuyoo ko sëñ Abdu Lahat 1969 moo tax sëñ Abdu Lahat su kooku kooku borom dugub jeewaay ndax bari ga ndax ndax ba ba nag 1974 la la la togg ndogu yi Thiès ñaar fukki ndab ak ñeent ca déwén sa mu doon xalifa général Baye Fall 1975 kër gi mu di fi togg bis bu ne ña ñeent fukki ndab ak ñeent. ba mu demee nag doomam ju baax jii daal di lu waay yukkul yaa ko wàññi mooy sa di ko di waaw lu waay yukkul yaa ko wàññi waaw daal di ko togg fukki ndab ak ñaar barkeelu ko ci liggéeyu maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Amdi Khady Fall waaye benn bis la ko togg daal di yéeg ba mu doon ay nangami téeméer tey nee amulu ko ab limite loolu mu ay muy muy téeméer téeméer kon Serigne Assane Fall loolu bokk na ca muy jëmm joo xam ne daal teel naa am xam-xam teel naa am ñaari diplôme 1919 le diplôme ci France ak ci arabe te itam 1919 la tàmbale am daara di ko liggéey di ko teg ci loxol waajuram moo teg ci loxol sëñ Tuubaa 1924 mu amaat daara daara yi dox mu di ko liggéey di ko teg ci loxol waajuram mu teg ci loxol borom Tuubaa 1926 mu amaat ñetteelu daara di ko teg ci loxol mu di ko teg ci loxol borom Tuubaa Xaadimu Rasuul kii moom ku teel a liggéeyal sëriñ bi la. waaw koy jërë ngeen jëf mbokk yi si topp bi ngeen ñuy topp démb ba léegi. démb ci ngoon la ñuy tàbbi fii nii nga xamante ni mooy njaareem wan nañ leen li nga xamante ni moo fi xew ci guddi gi yëpp gàtt yi ganaar yi matt mi ak mbooleem loo xamante ni bokk na ci wàccaay si ndog yi nga xamante ni am Amdi Xaadim mi ngi koy togg di ko yóbbul sëriñ Touba waaye biñ xëyee gis ngeen murid yi teel nañoo xëy si si liggéey bi ñu ne si wañ bi wan nañ leen la nga xamanteni ni la ñuy wajale ñam yi waye ñew nañ itam ci biir kër gi fi ki nga xamanteni ni bu jot mom la nuy bolel muy Baye Moussa sek tam yor kaddu kër gi waxtaan nañu ak mom waxtaan wu am am solo ci ki nga xamanteni nak moy Serif Assane Fall mom mi nga xamanteni mom moo meññi serif Amdi khadi Fall waye gis ngeen tembe fi ñu taxaw ni jamono yi ñam yi nopi na ba ñi ngi lal laltu yi ngir fasiyene wajal ko comme ni ko don wajale fi ndab yi ko ni kilife yi ñew gis ko ñaan bu ko defee ñu daal di ànd ak yéen topp convoi bi jëm fii nga xamante ni mooy Touba fii nga xamante ni fa la Serigne Mountakha Mbacké nekk ñu jébbal ko ndog yi kon nañ daal di àndandoo seetaanandoo loolu jaa ngeen jëf. ñëpp di ñaan mu yàgg fi te ànd ku wér ak fekke ko tal sëriñ bi ginnaaw bu mu nu nuyoo mi ngi nuy sant mi ngi nuy gërëm mi ngi nuy ñaanal ci liggéey yu màgg yu tedd yene weesu muy ñaari àjjuma yi jàll ngir sellal gi ñu ko sellal ak rafetal gi ñu ko rafetal ak liggéey ba nu mu ànd ak yar ak ak teggin akuk taalibe dinu sant tam te dinu gërëm ci ndigal li nga xamante ni Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké da ko koo jox muy kansul kitaab bi këruk alquran ca université Cheikh Ahmadou Bamba bee nga xam ni yëg na ni noo moom noo bokk pos-pos ndax dafa wax sëñ Mountakha ni ko dama bëgg ndogo yi dox liggéey bay dox kon nag yëg na ni jëwriñ yi dinañu ko saa yu nu jógee fii ajjuma dallu gaaw muy samedi dimanche ñëpp ci lañu xëy altine ñëpp ci lañu xëy talaata ñëpp ci lañu xëy àllarba ñëpp ci lañu xëy démb ci alxames ji lañu xëy si waat ci yéwi na liggéey bii loolu na jëw di ñëw nañu ko ne ko mboolem koo yilif ci kaw sara mooy mooy mooy rak mooy doomi rak mooy sa doom mu dib taalibe boo xamante ni yaakaar na kër gi ñëpp a ñëwandoo waaye mooy soppe muy wëllëre moo de ab xarit ñëpp a ñëwandoo kenn wanewul benn coono boo sonoon ci ajjuma ji keroog université bi ñëpp doon ñëw day mel ni sax keroog dañu ni ñi dëkk Touba bu dimanche nañu xëy waaye daa mujj waa Kees ak Ndakaaru Kawlax ñëpp a ñëw ko ñëpp la yéene faal kon nag sëñ bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi ñu ñu diglu nag sëñ làmp mi ndax sëñ siini Fall mii nga xamante ni moom la sëriñ am di jox kàddoom maa ànd ak sëriñ Fall Fall rakkam maa ànd ak ay rakkam ak i doomam dafa jox maam lam kàddoom boo xamante ni war na noo soññ war na noo digal li sëñ bi bëgg moo wax nu ko nu dégg ko te fas ko yéene jëfee. sëriñ Sidi ngi nuyu bu bu baax. nee ci kaddu si ngam xadi faal sëriñ si di wax na ni sëriñ am di nee na gannaaw bu mu sante yàlla gannaaw bu mu sante yàlla sant sëriñ Touba ak maam si Ibra Faal nee ñoom ñi muy liggéeyal mi nga sant bokkam yii di taalibeem yii sant gi nag sant gi nag nee na am na fu mu tàmbalee waaye amul nag fu mu yem ndax bi mu nee cas liggéey bi. ndax bi mu nee cas liggéey bii. ajjuma ja njëkk. ajjuma ja njëkk. ja ba tey jii. gis na ni. gis na ni. kenn ku ne. kenn ku ne. sa yitte. sa yitte. sa bëgg-bëgg. sa bëgg-bëgg. mooy basam rek. mooy basam rek. mooy ajuma ju ñëw. mooy ajuma ju ñëw. faaw xaja jàll. faaw xaja jàll. loola gis na ko. loola nag gis na ko. cant gi nag. cant gi nag. li ko ci ñoom. li ko ci ñoom. jaarale ko nag. jaarale ko nag. ci mbooleem taalibe yëpp. ci mbooleem taalibe yëpp. ak xarit yëpp. ak xarit yi yëpp. ak wëlëre yëpp. ak wëlëre yëpp. ndax gis na ni. ndax gis na ni. fenn fu nekk. fenn fu nekk. waaye jóge na waaye jóge na fa. jëfam ak jëfam ak wërsëgam ak wërsëgam ak teewaayam ak teewaayam boo doon xool sax boo doon xool sax day mel ni day mel ni lii ñu yor ñun lii ñu yor ñun ñi ko yorul ñi ko yorul ñoo ñu ko gën a bëgg ñoo ñu ko gën a bëgg ndax kenn ku ne ndax kenn ku ne ci ñun ci nun am nga wëllëre. am nga wëllëre. wala xarit. wala xarit. boo xam ni. boo xam ni. lii rek. lii rek. moo tax mu ñëw. moo tax mu ñëw. kon sëriñ bi wax na ni. kon sëriñ bi wax na ni. sëriñ Sidi mii. sëriñ Sidi mii. daa jot kàddu sëriñ. daa jotali kàddu sëriñ bi. wax ni. wax ni. lii kat. lii kat. kenn ku ne ci ñun. kenn ku ne ci ñun. war na laa soññ. war na laa soññ. soññ gi nag. soññ gi nag. mooy lii rek. mooy lii rek. ajjuma ju jot. ajjuma ju jot. ñu daje. nanu fi daje. song ko. song ko. bu ko defee. bu ko defee. li sëñ bi bëgg. li sëñ mu am ko. mu am ko. ndax amee li mu bëgg rek nu it nu am li nu bëgg da jàll na ajjuma ji da jàll na waaye lam daan wax rek waaye lam daan wax rek lay fàttaliwaat lay fàttaliwaat xel woo gis kat xel woo gis kat ak waay a metti ak waay ci gën a metti ajjuma ji moom moom jag na waaye dafa bëgg nag waaye dafa bëgg nag ñun ñëpp ñun maase ñu maase waajal ajjuma di ñëw yii di ñëw yii di ñëw loolu nag bu ko waxee loolu nag bu ko waxee dañoo jàpp ni dañoo jàpp ni ku ne xam na fi weeru tàmbalee woon ku xam na tamit weer wi jëm. fi weer wi jëm. kon néewul. kon néewul. nañ waajal nañ waajal ajjuma ji. kon néewul nañ waajal ajjuma ji. dafa wax ni dafa wax ni nañu waajal ajjuma yii di ñëw. ba keroog ba keroog. nañ gis leneen nañ gis leneen nag. mu bëgg nag mu bëgg nag. ak ñi mu bokkal ak ñi mu bokkal liggéey bi. muy kilifa gi muy kilifa gi. mu soññaat boppam mu soññaat boppam. soññaat ñëpp soññaat ñëpp. muy rak muy rak. muy doom muy doom. mu di taalibe muy xarit muy wëllëre kenn ku ci ne. na jaajuwaat kat ndax lii kat fii mu toll tey fii mu toll tey bu ñëwee bu ñëwee da koy romb da koy romb bu ñëwaatee bu ñëwaatee da koy romb da koy romb kon moo tax kon moo tax sëriñ bi wax ni nañ soññeewaat nañ soññeewaat soññee goo xam ni day mel ni day doog a tàmbali liggéeyam ndax yëg na ni ndax yëg na ni liggéey bi liggéey bi fa mu jëm fa mu jëm wóor na ko ni wóor na ko nii yitteel na ko fa yitte woos na ko fa yitte kon bu sañoon lu ko nit ñi naw naw moom lu mu xeeb la. bu sañoon dey bu ko fa wàccee kenn ku ne. man ku ne man caa jot. moom ëpp na foofu li man rek moom lay def. mu bëgg nag mu bëgg nag. nii mu ko ànd ak ngeen jàppe ko noonu mu ciy ñaan mu ciy ñaan. suñu borom mu yegge noonu ci barkeb Serigne Touba ak maam Cheikh ak maam Cheikh Fall. sëñ wax nañ tamit. mi nga fàttaliwaat. ndax sëñ bi wax na ni ndax sëñ bi wax na ni. ajjuma ji jàll kat ajjuma ji jàll kat yëg na ni yëg na ni ak soppeeku am na ak am na loola nag loola nag bu ko waxee boo ko waxee mooy lim ñuy digal mooy lim ñuy digal di ñu ko dénk di ñu ko dénk ñoo nga ca moo wax léegi moo wax léegi ni yëg naa ni kat yëg naa ni kat ajjuma ji jàll ajjuma ji jàll fabin wi fabin wi soppiku na soppiku na demin wi demin wi soppiku na soppiku na yegg gi yegg gi soppiku na na mu ne nañ ko ko wax ñëpp dégg ko nañ ko wax ko kon nag kon nag la mu digle woon keroog la mu digle woon keroog lay diglewaat lay diglewaat tey bu ñu fi bàyyi ko bu ko nañ yokkaat yar bi nañ yokkaat yar bi yokkaat teg yokkaat teggin yi yokkaat dal gi yokkaat tamit ni ñuy doxale ni ñuy doxale ci tëli bi ndax tëli bi kat ndax tëli bi kat am na noo xam ne am na noo xam ni ko doxalee bu nu ko doxalee dana indi jafe-jafe dana jafe-jafe boobu te jafe-jafe boobu la ñuy bañ ñun ñëpp la ñuy bañ ñun ñëpp a àgg ñu yéex a àgg ndax lii ndax lii daa bëgg nañ koy yut dafa bëgg nañ koy yët teel cee jot teel cee jot kon oto yi kon oto yi bu ñu dàqee bu ñu dàqee waaye ku jiitu waaye ku jiitu na nga dox na nga dox ba bàyyi ba bàyyi xel te bàyyi xel ña sa ginnaaw ña ci sa yi te dox bi wax na ni liggéey benn bàyyi ko nan ko soññewoon tey ñun ñëpp nañ wax la jël ci liggéey bu góor. jigéen jigéen. mag mag ndaw ndaw. bu ñu fa dajee rek. bu ñu fa dajee rek. ba dimanche ba dimanche lu ñu nekkaat. lu ñu nekkaat lu ñu nekkaat. ñëpp yëg ko ñëpp yëg ko. waaye dimanche ji daal waaye dimanche ji daal. nan dajewaat ci liggéey ba. ñu defaat ko ñu defaat nan defaat defaat ko. bu ñu ko defee bu ñu ko defee. li sëñ bi bëgg. li sëñ bi bëgg. lee mu am ko lee mu am ko. te bu ko amee rek. te bu ko amee rek. ñu am ko kon sëñ si di nee na. waaw kon sëñ si di nee na. mi nga sant ñëpp. bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn. fu fi waay jóge woon mi nga lay ñaanal mi nga lay ñaanal. nga àgg ci jàmm bàyyi fi jàmm bàyyi fi jàmm romb ci yoonu jàmm romb ci yoonu jàmm barke maamam ci barke maamam ak Cheikh Serif Assane ak Cheikh Serif Assane jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf la la la la lại là la ilaha la la la la đại ha. waaw koy mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax ak di leen gërëm si topp gi nga xamante ni yéen ñu ko topp démb ba léegi demaloon nañ leen fi nga xamante ni mooy njaareem kër am di Khady Fall moom Cheikh Serif Assane Fall wan leen la nga xamante ni moo fa xew ci wàccaay yi ñuy waajal ndog yi di ko indi fii nii ci Touba. ànd nañoo ak yéen biig si guddi si li nga xamante ni mooy la fa xew ci wàccaay gàtt yi ak li nga xamante ni lépp aju na ci ñam yooyu nga xamante ni dañ koy waajal waaye bi ñu xëyee itam teel noo génn ànd ak yéen si waañ bi wan leen liggéey bu rëy bi nga xamante ni taalibe yi rakkam yi sët yi ak mbokk yëpp ànd nañ ko moom di ko liggéey ngir li lii nga xamante ni ñu ngi koy indi Sëñ Tuubaa mu mel na nga xamante ni moom la ko bëggee noonu la ñuy ànd yéen itam jëlee leen ka nga xamante ni moo yor kàddu kër gi di Baye Moustapha Seck waxtaan ak moom si jàmbaar jooju nga xamante ni nag tey buñ nee Serigne Amdy Khady xel yëpp dana dem ci moom muy Cheikh Serif asan Fall noonu la ñu ànd ak itam gannaaw bi lépp noppee ñu yàpp ko si oto yi ñu wan leen li nga xamante ni mooy convoi bi ñu jugee njaareem jaar si dëkk dëkkaat yi bi fi nga xamanteni ni mbacké jaar bir mbacké ba duggu Touba ambiance yi lepp gis ngeen ko ñepp genn andando di sante Serigne Amdi Khady te diko ko mu yàgg fi non lañ def ba aksi fi nga xamanteni ni Touba fi nga xamanteni ni résidence fi Serigne muntaha mbacké nek jumaaji ne ni suñu ginnaaw gis ngeen camion yaangi ni taxaw kon aksi nañu fi, lepp la nga xamanteni ni nañ ko ak def nañu ko wax nañ leen fépp foo xamante ni njabootu Cheikh Ibra Fall gi ña nga fa di togg ndogu danañ dem jëlee leen la nga xamante ni moo fi xew moo ñu yóbbu woon fi nga xamante ni mooy njaareem te moom lañ fas yéene ànd ak yéen ba koor gi jeex incha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu